صفقت لي رب البرية البدن أزال أغاد من خلوني بددا سعاد لي رب البرية البدن أزال قبل من خلوني بددا سعاد لي رب البرية البدن أزال قبل waaw dara gis màggal wax dëgg yàlla nay bari na gëlëm yi bari na njëg yi wacc nañ bu baax par rapport na mo ma ci ginnaaw kon ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu autorité yi d'abord ñu jiital nuyu président de la république son excellence di nuyu ministre de l'intérieur gis naan force de l'arbre bi ni mu taxawee ñu nuyu inspecteur élevage d'abord di jiital sëriñ bi nak moy lepp ndax moy sun kaaraange moy sun doole moy sun lepp Cheikh Abdou Fatah mom suñ fallu ak ñi xam ci mom la andal muy ku melni aladji El seydou las chef de wax deug yalla am dalal bi sant nan contane nan ñi ngi jaay bon lañu wara jaay te it dalal bi foo mën Senegal, Sénégal xam nga dalal moy fan kon wax deug yalla am dalal gi mom nek deg egg na ci niveau bo xam ci si ne international la ndax fi ndani bo xolé fi ci bi dalal bi maliens yi nigériens yi burkina bi mauritaniens yi gambiens yi ñepp ngi fi ak sénégalais kon xam nga né dara international la par rapport fi ndani ni ni lim recevoir ci ci man man man na presque 7000 7000 tête nak nak mom li ngir sama mom mom mom ken musul am ba Touba di Touba ak tay li fi dugg ci ren ci gëlëm ak nak musu fi dugg kon machallah wax dëgg yalla machallah manam mom euh, Touba ak Magal Touba ken mënu ko xayma ci client ndax euh, sama classe gi donga yi yi gën a ku ci jënd ginaar ren bu déwénee da ngay fas def ko ñatt même ku jëndon gëlëm daaw da ngay fas def ko ñaar. moo tax maanaam taux bi fi ñëwoon daaw bu ñu xayma ak biran multiplier ko 2 virgule 5 kon xam nga ne te fi mu ne nii njënd mi danañoo taxaw tem tem tem tem boo boo taxawee gis ni ñuy safa gëlëm yi da nga naan lii moom mbirum Seexul dem rek moo mën a def moo mën a mel nii kon ñoo ngi ciy sant bu baax di ci kontaan macha allah gis ngeen force de foo taxaw doo dix yoo taxaw lu yoo dox gis nga gendarme mi ngi taxaw dix yoo dox ñu taxaw nag guddeeg bëccëg amul wàcc bu ñuy wàcc am ñu leen relevé ba bët set jot dañuy dox gis nga biig li muy taw li taw bi bari bari bari bari bari ñu ngi taxaw sol seen i mbubbi bâche ak nit ñi wax dëgg yàlla amuñu wax dëgg amuñu benn jafe-jafe borom àll yi ñëw nañ fi ci jàmm tëdd jaay si même boo gis koo xam si ne amul gédd amul dara fi mu bàyyi ay juróom di di nelaw bu xëyee même bu manqué ñaar bu wëree ci biir dara bi daal ko gis daal dajalaat ba mat mun a dem yoonam waaw fi ne nii malien ak burkinabé yi foo mën a gis ku ci déggul français déggoo wolof dégg nga pël ñii bari na ci ñoo dalal ba xam si ne dañuy wax ak ñoom français buñ ko déggul ñu dégg ak ñu wax ak pël ci moo tax mi ngi wax dëgg yàlla ñi ngi jaayante bu baax baax baax te ñoom am na ci ñoo xam ne si sax ay ay malien dégg nañ wolof ndax dañoo nekk Sénégal am na ci ay burkinabé xam dégg nañ wolof ndax dañoo nekk Sénégal ñoom ñoo nekk seen biir di waxante waaw am ñu benn jafe-jafe seen njëkk wax dëgg yàlla macha allah seen jaayante mi benn jafe waaw ah. kon daal lan ngay mën a wax kon ci euh, Maga waaw di di di di sant yàlla rek di santaat yàlla li li li sëriñ bi woote rek sant leen mu sama borom kon ñun ñoo ngi ñoo ngi ca biir loola di ko santale suñu borom te it ñoo ngi sant bu baax di santaat yàlla di sant sëriñ bi ndax lépp nag lépp ci xéewali sëriñ bi la lépp ci xéewali sëriñ bi la borom màggal gi lépp daal ci barkeem la xéewalam kon ñoo ngi ciy taasu ci barkeem ak xéewalam ba moo law ba agsi fii tey mo law ba aksi ci ñeneen ñi nga xam si dëkkuñu fi mo law ba aksi ci ñeneen ñi xam ci dañ koy dégg ndax cheikhul khadim mom international la ku ko ku ñew dit bëgg nga ñew ku ñew dit sa yeen ak sa xol ak sa bëgg-bëgg yépp ñew na ñun sàkk màggal dañ fi ñew jaay si fii suñuy nax alhamdulilah nag no daral bi am na sécurité nag nag ñu ngi fi ñu ngi fii di jaay ñun ñaa ngi ñëw di di fay seen prix ñu tamit bon nag bu ne ak piram loo loo kii rek bu ñëwee fii dinañu jaay la waaw léegi ci euh, buñ ko xaymaa diggante daaw ren ndax gis nga ne ren la euh, njaay mi ko wala macha allah mais affaire bi moom mu ngi yokk màggal moom xam rek waaw lu jëm si suñ Tuubaa moom yëpp macha allah ñu ngi gis si suñu bopp bu baax wante tamit euh, dañuy ñaan rek clients yi nañu gën a góorgóorlu ñu ñu ñu xam ñun ñoo bokk affaire bi ñoo ñoo bokk jur gi ñoo alal bi ñoo jëm ñun ñëpp te lan delloo ziar bu bah. baax man Abu ngi sadiq Abu Bakar sadiq Sadikh mo Tuubaa dama magal si waaw maa ngi jógee Saalum gin ya. waaw dëkk Serigne Xaasim Mbacke fa laa jógee waaw dama ñëwoon jënd si waa yi de bari nañ mais njaay mi xaw na xaw na cher parce que comme ko fii gars yu bari dañuy jël ay gileem ñëw teg ci dara loolu moo tax muy xaw a am nañ daal bi ñu bëgg ci prix bu 500 500 530 daal mais nag après dañuy am problème oto fii bu ko yóbbu loolu daal mooy mooy waaw de toute façon dara gi moom calme na da ñëw jënd si ngay jënd si jàmm ak salaam voilà amul dara lu lay lu lay lu lay sonal voilà kon daal mën nañu wax ne am na sécurité bu doy voilà. bala ngay dugg aussi tamit am na gendarme yi xam ne ñu ngi ci biti di xool di xool di xool nit ñi fu ñu war a jaar ak fu ñu war jaar kon daal seetlu nañ ko bu baax a baax. gileem gileem rek laa amoon yitte pour jënd ko waaw jënd naa mhm. baax na waaw. kàddu yu mujj waaw sant yàlla rek am na di ñaanal uh, ñëpp ñu ñëw màggal si ñu màggal si jàmm ñibbiwaat si jàmm ñaan suñu borom nangul ñu lépp loo xam ne def ci at rek ñu def loo xam ne lu ko ëpp ñun ñëpp ay taalibe sëñ Tuubaa lañ te sëñ bi rek moo ñu fi indi di ñaanal ñëpp jàmm rek di leen ñaanal yéen aussi jàmm ñu naan màggalu jàmm ak salaam voilà jërëjëf. Ngirëm moom biñ sañcee dara bi leen 2012 ba léegi eh, maa ngi fi jaay Ngirëm noor ak nawet waaw. noor bu noor dama ko jaay bu nawet dama ko jaay avant màggal sax dama koy jaay waaw lan 2012 ba léegi daal maa ngi koy jaay fii ci daral bi ni nga ko sànceeg lee. prix yi xam nañ xam euh, yi nag moom gëléem bu rek ak fa mu rek ndax gëléem yi am na yoo xam ne mën nga ko jaay 450 yi gën a néew prix na yoo xam ne maa ngi koy jaay 1 million am na yoo xam maa ngi koy jaay 800000 ba léegi rek am na ñetti gëléem yi ñu ci def 2 millions 200000 ma ne ko 2 millions 300000 100000 moo jaar suñu diggante te nee mi ngi dellu si. Eh, gile mi mom ñong na naa yem yëmuñu ben purée waaw ah, ana tuar kala san nañ baax daal. gileem rek nga jaay nag jaay ngeen sama kan moko jaay ah, waaw nag tamako jaay. dara gi nag naan noo dara gi maanaam sécurité wala am amna, ah, am na sécurité bi moom tuwaar kàlla ndax garde yi bu sécurité amul day ñëw ñoom seen bopp wax ñu ni am nañ problème waaye benn garde ñëw guuti ñun ni ñu am na problème. même loi yi nga xam ne ñooy am di loi itam ñu ngi circulé ci biir baax a baax waaw amuñu benn jafe-jafe daal wax dëgg ñoo ngi sant yàlla bu baax ndax sëriñ bi dafa wax ne nañ ko sant la yàlla kon tam ñun ñoo ngi koy sant la yàlla bu baax a baax a baax daal euh, ñi nga xam ne ñooy jàppale itam ñu ngi leen di gis sant nañ leen bu baax waaw Oh. di bari lo mo amuñ ci benn problème ndax gëlëm yi buñ leen di andi day jël auto fay ay 80000 wala 100000 budé da nga yor lu mat 40 gëlëm nga dàqloo ko benn way fay ko 100000 mu andi la ko amuñ benn jafe jafé waaw xam naa jafé jafe bi da moy jëlé fi gëlëm yi transport leen ci biir dëkk bi euh amuñ ci won jafé jafé sa way ndox mi ci biir dëkk bi motax ñu am ci jafé jafé ndax auto yi bo wax mu ni do mëna a ci ndox mi

ganaar moom séerul moom ganaar moom prix bi moom séerul ndax euh, façon ganaar yëpp am am na poulet de chair am na batterie yi jar ñeent juróom fukk am na ñeent yëmul fenn sans départ ganaar am na ganaaru kii ordinaire yi mooy ganaar réew mi yëmul fenn boo ñëwee daal moom loo bëgg rek ganaar goo bëgg rek am na fi hmm? yëfi sëñ Tuubaa moom day gën a jëm kanam rek mais amul jëm kanaaw armée bu ñëw rek gën a neex ba ca des. de noonu amuñu yooyu amuñu yooyu problème moom moom noonu moom kenn du fi ñëw client yaa ngi ñëw dañuy jaay di yooyu amuñu benn yooyu problème moom